asalaamaaleykum asalaamaaleykum gars yi maa ngi leen di bëggee si leen ziar di leen ñaanal jàmm tamit di ko ñaanal tamit <laughs> suñu bopp donc lu am am solo la gars yi dañ koy continuer rek comme ni ñu ko doon defee rek dañ noonu lañ koy continuer di ko defaat nag di leen jox xibaar yi nga xamante ne si rek moom lañ fi jot a jot ci euh, tàng tàng bi xibaar nag gars yi dañ koy commencé si lii xam naa ne sax du leen bett mooy euh, Norvège nag ah, dañ doon tànn ci joueur ñu xool si joueur seen joueur yëpp ñoo xool joueurs yi ci gën a xarañte ñu nekk ñi nekk Europe wala ñu nekk feneen fu dul Europe mais ñu nekk euh, euh, de si mois bi ah ngeen gis ak ballon d'or euh, norvégien bi ah gars yi ak dañuy continuer gars yi ñu wax suñu doomu réew yi nag ki nga xamante ni si bi rek mooy Bamba Dieng ak transfert am ni mu demee transfert bi bëri na coow bëri na mais ki nga xamante ni si bi mooy. Mofi muy joueur Lorient bi nga xamante ne si bii rek moom la Marseille bëgg indi foofu ñu wecce kooku ak Bamba Dieng pour après jox leen ñi nga xam ne ñooy Lorient waa Marseille jox leen 30 millions euh, pour ñu mën a indi ki nga xamante ne si bii rek mooy Mofi après euh, ñu def euh, benn échange mais ba Dieng bëgg na dem fi nga xam ne mooy Lorient. mais ki nga xam ne mooy Mofi bëggul dem Lorient nag Nice la bëgg a dem donc loolu mooy loolu loolu moo indi nag euh, problème bi loolu moo tere Bamba Dieng ba léegi nii nii nii mënagul signé te instant bi wax ak yéen nii Bamba Dieng mu ngi Lorient mais mënagul que ki ne mooy Mofi nee na moom bëggul dem fi nga rek euh, mooy Olympique de euh, Marseille moom bëgg-bëggam rek fi mu bëgg a dem mooy niis donc loolu rek moo tax ki nga xam ne mooy Cheikh Ahmadou Bamba Dieng jógewul bu léegi fi nga xamante si bi rek mooy Marseille mais xalaat naa ne des du yàgg dara du yàgg dara ngeen dégg ne euh, Bamba Dieng donc dem na fi nga xamante ne si rek mooy euh, Nice gars yi dañ koy di nag waxaat ci beneen doomu Sénégal bii xam naa ne sax di ngeen ko xam muy Formose Mendy gars yi Formose Mendy intéressé gars yi par ñi euh, West Ham West Ham dafay jax guddum na kii du ko bàyyi parce que talent la jeune la avenir ci li nga xamante si bi rek mooy euh, football latéral droite bi nga xam ne mooy Formose Mendy gars yi xam ngeen ko bu baax l' international euh, sénégalais donc aussi bëgg na dem moom ak entourage am ak famille yëpp euh, d' nañu pour dem fi nga xamante si bi rek mooy Euh, West Ham donc peut na xam naa ay finalisation yu tuuti rek affaire yu ndaw la ñu war a euh, régler rek incha allah ki nga xam ne mooy le fils du Sénégal donc fa rejoindre di dem et c'est très bien c'est très bien man mi sax j'aurais bien aimé gars yi gis ki nga xam ne mooy Bamba Dieng euh, mu dem fi nga xam ne mooy Angleterre parce que Angleterre tamit day gën a yokk sa niveau parce que championnat bu ama am doole la